européenne moom moo ko euh, financé woon et que finalement ñooñu au lieu que ñu dem surveiller les frontières comme ni ko ni ñu ko waxee woon ak euh, tubaab yi dañ leen di doon utiliser pour réprimer les manifestants euh, au Sénégal notamment Ousmane Sonko lors de sa marche pour la paix je ne sais plus comment il s'appelle il tout à fait Moussa va mais déjà je, il faut ñu préciser ni que wax jooju fii ci Walfadjri mhm. ci événement mars 2021 yi dañ ko njëkk soulever fii mooy quand il y a eu les premiers morts mhm. man mii ba mu fa demee ba dellu laa leen wax laa fi njëkk souligner mhm. l'implication du Garci dans le dispositif du maintien de l'ordre mhm. ñu ñëwaat deux mille vingt deux deux mille vingt bi ñu gisaat ko samay chronique yi may def chaque semaine fii par mardi un mois ma dellusi si si waat il un mois il y a un mois j'ai parlé justement de la présence du Garci GARSI boobu. Mhm. dafa nekk benn groupe d'action bi nga xam ne Union européenne benn force bi ñuy wax force de la Valette benn c'est un projet. Mhm. ñoo créé le concept GARSI. Mhm. maanaam pour juróom-ñetti dëkk ci Afrique de l'Ouest ne leen yéen damay dooleel seen gendarmerie. ñi def ce qu'on appelle de l'interopérationnalité mooy maanaam ñiy mën a liggéeyante ñoom seen biir. pour aar frontières yi. pour aar frontières yi. maa leen di former maa leen di jox matériel ba nga xam ne lépp la nga xam ne day doon infiltration entre dëkk bu mel ni Mali ak Sénégal. Mhm. gendarmerie Mali garsi garsi Sénégal tamit ñu mun ko xeex partage d'information ainsi de suite ba juróom benn dëkk yi kii. premièrement bi ñuy dem. ils sont partis avec un budget de 41 millions d'euros xam nga 41 millions d'euros ça fait combien de milliards moom la mooy 2015 moom la ñu voté. Mm-hmm. léegi ba ñu defee noonu nag mu am une série de formations formation yooyu mooy lan dañu leen former woon justement pour lutter contre le terrorisme mm-hmm. et la délinquance transfrontalière ci seen objectif mm-hmm. moo tax démb j'ai très bien fait d'interpeller directement l'Union européenne mais comme ñoom boo leen woowee rek. Mhm. ñu tontu la damay wax fii damay liir fii liñ ma tontu. Mhm. dama leen dama ne bu ñu ci waxul ñoom. Mhm. ndax bi ñuy déployer la GARSI au Sénégal ci mécanisme yi dañu autoriser cette force la à utiliser ces moyens ci manifestation politique yu Sénégal waa wala déet. biñ ci tontu dañ ma ne. Euh, ñoom. li ñu d'accord bi ñuy déployer Garci d'abord un formation bi mmh. c'est vrai que Union européenne la mais la garde nationale bu Espagne ñoo assuré la formation d'accord ñu ne tey formation bu garde nationale bi ñu koy assuré mmh. fourniruñu leen ils mhm. n'ont pas fourni au gar euh, euh, Sénégal mhm. de formation à la sécurité dans le contexte de manifestations publiques de masse ou de protestation. Mmh. que l'accord de projet interdisait au Sénégal d'utiliser l'équipement en dehors de l'objectif du projet. C'est ça l'accord. moom waaw ñu ne mooy d'abord premier benn benn volet ci accord bi. Mm-hmm. benn bi ñu ne le cadre était spécifiquement et clairement défini dans son champ d'application. et d'intervention mmh. le l'équipement du GARSI dañ ko waroon utiliser juste dans les zones transfrontalières pour la protection des habitants yi nekk ci zone yooyu d'accord donc loolu loolu lañ tontu loolu lañ ma tontu mhm. léegi nag ñu posé wu question question bi mooy lan mhm. su dee ay unités spécialisées dañ leen former dans la lutte contre le terrorisme doté leen de moyens conséquent pour la lutte contre le terrorisme parce que fii yàgg naa di wax fii ci plateau ma ne man moyens yi may gis ñuy déployé fii. Mhm. Sénégal mooy moyen yi nga xam ne boo demee Tchad boo demee Burkina dëkk yi nga xam ne il font face au terrorisme. loolu la ñuy yore seen service moom la ñuy utiliser. donc man j'avais un peu benn problème par rapport à cette utilisation. léegi problème bi nag bi ñu ko gisee fii. Mhm. on s'est posé des questions. ñoom bi ñu tontoo donc notre notre religion a été faite mooy léegi nag la problème qui se pose mooy dans quel cadre nañu mën a jëlee li ñuy wax garcé oui utiliser leen de troupes yi nga xam ne seen spécialité c'est la lutte contre le terrorisme matériel bi ñu yoree c'est un matériel de pointe pour la lutte contre le terrorisme et la délinquance transfrontalière et j'imagine que manifestant yi fi nekkoon à part li procureur waxoon ak les ministres la force occulte ak force terroriste te armée ak gendarmerie seen bopp démentir leen ne pas de terroristes au Sénégal y avait pas de force occulte c'était les Sénégalais qui manifestaient mhm. donc il faudra qu'on nous explique comment on a pu déployer mhm. à l'intérieur du Sénégal mhm. une telle force alors que à l'origine seen mission seen objectif. c'était autre chose mais pas ñu déployer à l'intérieur pour des manifestations na xam naa dinañ occasion waxaat ci beneen parce que bokkuloon ci li ma internationale am une campagne de la presse internationale euh, contre euh, Macky Sall et son régime yu mel nii moom parce que là c'est une enquête d'Al Jazeera même si Pape wax na ne moom il il waxoon na ci il y a déjà quelques quelques mois euh, enquête bi nga xam ne moo tax coow li bari diggante démb ak tey c'est des journalistes notamment d'Al Jazeera qui qui qui l'ont maam Biré sa micro dafa fay. Hmm. donc maa ngi doon wax ne munoo def la différence entre yenn médias étrangers yi. Hmm. ak dëkk yi nga xamante ni fa la ñu bàyyeekoo. Hmm. li ma bëgg a wax par exemple mooy da nga dégg euh, président Macky Sall mu wax ne dafa am benn genre campagne de jabolisation boo xamante ni moom. victime la ci jàpp na ne victime la ci. mu ne nag loolu ça n'a rien à voir ak euh, jëflante bi Sénégal di jëflante ak état yi. Euh, euh, loolu ma jàpp ne différence bu ñu mënul def la Al Jazeera par exemple munoo koo détaché ak l'état du Qatar. Oui. ak euh, euh, l'émirat du Qatar. absolument comme également munoo détaché la France ak France 24 ak RFI. Mm d'autant que ñaari euh, médias yooyu bokk ci benn genre consortium. groupe France Média Monde. très bien ça dépend directement du Quai d'Orsay. du ministre ministère des affaires étrangères bu France. Mm -hmm. donc mën nga wax ne ñoom. information yi nga xamante nii dañ koy jàllale ak propagande bi nga xamante ni moom la ñuy gën a def mhm. souvent dañ koy def au service de leur état au service des intérêts Hmm. de leurs états donc bu demee ba nga xamante ni Macky Sall gis na ne dañuy teg une campagne de diabolisation contre moom. Hmm. na xalaat ne ñoo ñu defuñu ko gratuitement forcément état yi ñu ngi ci. xëy na dafa wax ak état directement moo tax mais xam na ne alors loolu moo ñuy permettre Serigne am ñu waxtaanee euh, beneen thème muy ci wàllu justice euh, ndaxte semaine bii ñu génn lañu ñu teg loxo euh, kii di maître Ngagne Demba Touré Ngagne Demba Touré liñ ko gën a miine mooy Pastef la bokk moom moo jiite les jeunes de Pastef mais Ngagne Demba Touré. Euh, euh, greffier la euh, le fait mooy comme li waaj doonoo sax na ñem ci les faits mooy bi ñu ko bi ñu ko jàppee yóbbu ko devant le juge Mamadou Seck greffier yi dañoo mobiliser wu ñëw ne du fi amee coow li bari lool am na ñu ne am na sax ay saaga yu jóg ci bureau juge beeg yëpp alors